Eh, wax wax nag ah taxaw leen yéen a ngi nii de gars yi xool leen. yóbbante galgal ubbi làmb. yóbbante dañ ko tëj man ak moom. Ah, ah? làmb. demal boo demee galgalee ma ko nii ubbi làmb. Ah. gis nga ku yëy ba yëy yàqu buti. waaw ku yëy ba bukki. léeg nga da gis ku mën a yëy lool. mbër ki yàqu ginaar da ko yëy yëy bukki ay ay yaxam te warul. ah ko yëy. ginaar mel na. bukki ah, yàqu waaw man su ma rek jour boobu laay jël peel dee. wala ma ah. taxaw sama góor. yaa am lu xel ñaar si moom jour boobu laa jël paak xaru. nga xam ne su ma tey safara laa jëm. waaye bii combat nam naa. mbër ku dul gis ak xool ba ko billaahi wallaahi tallaahi bu leer naa la woon. waaw mais bébé yow nii. xanaa da ngaa pare physiquement. Ah. ginnaaw mu def nii man la taxaw. est-ce que naru laa song. mbër ci jéem a jaay kar di wax ak di patane kii bàyyi la doomu aadama kese la. ñoom doucement rek. ñoom ñoom xam nga xam nga da ñëw suma dëkk. tiit moo tax ma la taxaw nii dama ni. dama ni. sama dëkk la ñëw. man maa ko war a dalal. kon dañ koy bàyyi soo bi. ngir tëralee ko ko. waaye. lii muy wax ngeen koy dégg yéen. bébé ñëwal ba nii. Babacar pour ñu bañ a sori fi ñu jëm dafa sori dañuy ñibbi Dakar yaa ngi dégg. te kii moom wàllu communication yàlla daf ko cee may moo ma tax suma grand nekk suris muy bébé Diallo. waaw jàppale ma yàlla na ko yàlla sama borom fay. may woo sama papa tey sax nag yàlla sama borom aar yaa ngi dégg may woo bu baax Ousmane Noël Dieng sama doomu day maa ngi lay woo ci combat bi. wóyul Lamine mais. yaa ngi dégg maire maire Kaolack. wóyul Lamine Boub maa ngi lay woo. wóyul Lamine. ah. lan bi. may woo. maa ma ci waay dama may ma may woo. yaa ngi dégg maire Kaolack. sama doom day maa ngi koy woo yaa ngi dégg rek autorité bu nekk wax maa lay woo te nag du ma ñëw Kawlax nag wax dëgg yàlla ba tam te nuyu ma suñu waa kër maam Baye Niass yaa ngi dégg ndax ku wax Kawlax ni ma grand mu gës ku wax Kawlax ni Baye Niass jàmm tey doomu aadama bu dugal Kawlax ñibbi eh, déglu ma waaye mbot ku ñëw Kawlax ba dem